Euh, am na lu ma ko bëgg tooñee sax mais ñeme moom parce que daf maa menacé <laughs> <laughs> Omar euh, euh, yow quand on parle de de de de loi wala de yaa ngi wax ni que dañoo war peut-être permettre à ce que sénégalais yi ñu comprendre un peu de quoi on parle te ñu waxee waxu loi rek on va très loin ba peut-être maire bi toog di jaay gerte ak yooyu mën na bañ a xam euh, fan fan la ñuy waxee. mais loi yi fu ñu mën a yóbbu on se pose encore des questions parce que li xew tey ci élection législative yi peut-être kenn comprendre ko pourquoi une seule et même liste ñu diviser ko mais soo gisee derrière euh, également ce qui se passe lan lay entraîner mooy yaa ngi gis ne que commencé nañ ay manifestation di manifester déjà euh, par rapport ak euh, ak ak ak élection yi ñu jëm nga gis président de la République ca France 24 ne pousse ay élection wala élection ñàkk am parce que am na ay liste ñu rejeté loolu c'est devant nous donc ça veut dire que ñoom du ñu permettre peut-être loolu am mu nekk te également lu lu dangereux peut-être pour notre je tiens à féliciter Aar. <laughs> ñoom ils sont tranquilles ci seen coin. ci seen si si li ngeen def parce que lu rafet la. am benn projet de législature waxtaane ko ak sénégalais loolu le Sénégal soxla pour ñëpp nag sa doit être un exemple et l'honorable député a reconnu ça comme il a si bien dit pour Yewwi aussi dañ ko war a def comme ñeneen je pense que loolu ngeen def noonu non non loolu dafa am solo. que boo bëggee laaj baatu askan wi da ngay wax ni lii laa bëgg def loolu nga bëgg def nag ku nekk xool sa bopp mais malheureusement ñun nag dafa am ni ñuy xoolee kii moo rafet kii moo dàq saaga kii moo dàq yuuxu kii moo def lële waaye la sa bopp duñ ko xool ak la ngay proposé duñ ko xool te c'est ça le problème dans ce pays. Mm-hmm. il faut ñu déglu ñu ñi am projet ñi am vision ñi am xam-xam ñi am ni ñuy lépp lu leen préoccupé c'est le développement de ce pays. gëm ko nag la ñuy wax jëfe ko moo tax nous vous félicitons par rapport à ça et chacun maintenant war nañu xool si yéen faire des propositions déjà aux Sénégalais loolu c'est c'est important hmm. beneen bi mooy nen ne hmm. le conseil constitutionnel a complètement brûlé a complètement détruit hmm. notre code électoral <laughs> à partir de cette décision je ne parle pas d'abord des hommes politiques conseil constitutionnel waxuñu ko mu contrôler dañu mu liir waxuñu mu contrôler liiral lii lii la ak lii la mais xam nga la mooy problème Sénégal te loolu Serigne c'est un problème que les gens doivent régler une décision du conseil constitutionnel s'impose à toutes les autorités voilà mais loolu loi boobu mais loolu loi boobu loi boobu ñëpp dañ ko war a taxaw xeex ko parce que loolu tant que mi ngi fi réew mi du am jàmm loi boobu loi bu dangereuse yi ngi noonu mhm. c'est-à-dire tey conseil constitutionnel même bu fekkoon ne dafa am décision moom te nii c'est-à-dire que tey bu li doon constitution bi mhm. constitution bi wax lii bi code bi moom mën na outrepassé loolu yëpp jël décision am te cette décision là s'impose nen mhm. loolu il faut nit ñi xam ko mën na lii la constitution bi wax <clears throat> lii la code bi wax wala lii la lii wax mu ñëw ci man ma ne lii yëpp gëwuma ko li ma gëm lay def man conseil na jël décision boobu. nit ñi ne ko mais lii la lii la code constitution bi wax wala lii la code bi wax nga ne leen li loolu wax yëpp sama yoon new si. lii laay wax man. man lii laa wax te li may wax s'impose à tout le loolu il faut ñu dindi ko d'abord loi boobu deuxièmement Serigne. Mhm. Dakar lan moo tax ñu ñu rejeté ko la liste de Yewwi Dakar logique pour logique. parité non parité mm, dañu dañu dañu parité bi dañu dañu rejeté titulaire bàyyi suppléant wala dañu rejeté ñaar yëpp. ñaar yëpp la ñu rejeté waaw ah, xam nga ñaar yëpp la ñu rejeté damay wax rek logique pour logique. <laughs> dañu rejeté suppléant. rejeté titulaire kii wala dañu rejeté ñaar yëpp. ñaar yëpp la ñu rejeté liste bi la ñu rejeté ñaar yëpp. pour montrer la contradiction du ministre. la contradiction la. <laughs> non ban ban mais yow mën nañu la jox conseil constitutionnel la. <laughs> non ban man je vote pour toi au conseil constitutionnel départemental de Dakar. wóor na xoolal dañ ko lan non dama ne. Omar si on vote man je vote pour toi président conseil constitutionnel bàyyi fa si ba ñaar yëpp lañ boole dàq. DGE. la il a raison DGE la <laughs> waaw non voilà. c'est les suppléants et les titulaires lañ dàq. la liste. ñaar yëpp. <laughs> a raison après ñu wëlgatiku ñëwaat. waaw dàq bàyyi bii ne mën naa nekk mhm. suppléant ak liste ak liste Yewwi euh, titulaire. Mhm. ak liste Benno suppléant lu tax ñu rejeté ko ci parité moo logique pour logique normalement est-ce que loolu xel nangu na ko nga dàq liste Dakar titulaire ak suppléant si même logique boobu <laughs> nga dàq si proportionnel proportionnel bi kii <laughs> dàq bi bàyyi bi dàq bi bàyyi bi c'est que loolu doy na pour waree ni lii c'est contradictoire tout aujourd'hui tout le reconnaît képp ku sérieux la la même décision dans la même décision waaw waaw moom laa ah. ci les mêmes choses les mêmes logiques parité la parité la <laughs> ci mhm. man dama yaakaar ne logique pour logique rek Serigne l'a dit et on l'avait dit avant oui. que tous les deux listes devaient être rejetées naturellement ku waxal yàlla rek que ça soit la liste de Benno comme la liste de Yewwi doit être rejetée et laisser les autres avoir le courage de laisser les autres le choix d'aller aux élections yaa ma mën a am. alors on a compris que dañoo bëggoon dem euh, si benn sens inclusif mais est-ce que foofu lañ leen waroon xaar. non moom c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que hmm. bëggoon nañ lire yi nga xamante ni moo am. c'est-à-dire Benno ak Yewwi waruñu dem nen dañu war a toog bàyyi. logique pour logique. bàyyi ñeneen ñi ñu dem. maintenant am na ku nekk nag ku ne looy gisee. aar li ñu wax mooy ñoom ñaar nañ dem ñun dañuy dem xool xool foofu amul intérêt de. Mhm. c'est que ku ci ne yaa def sa sa njuumte ne def nga njuumte. voilà mhm. <laughs> c'est-à-dire xam nga conseil constitutionnel il était le conseil constitutionnel était en l'aise pour mhm. parce que ñoom ñi nga xamante ne ñoo ko def reconnaître nañ avant même la décision du conseil constitutionnel. def nañu erreur donc Sénégalais bi loolu la bëgg a xam c'est-à-dire ñoom ñaar ñëpp ku ci ne def nga erreur donc logique pour logique qu'on rejette tous les deux listes et qu'on laisse le soin aux autres mais dafa am ñoo xamante ni dañu gis ne élection bu bennoo bokkul yeewi bokkul loolu du élection mhm. loolu nag ñii bu leen neexee na ñun duñ ko nangu. te day xaw a bizarre. waaw day bizarre. Mhm. ñii ñii ah ak ñeneen ñi si xamante ne ñu bokk bu leen neexee ne ñu ñun duñ ko nangu maintenant nag fii dafa amul ay. ay deal wala ay compromis lii la code bi wax ou dañ koy appliquer ou ñu bañ ko appliquer mhm. à la bu fekkee ne dañuy def dañ naan léegi yéen waa waa waa bokk quinze yëpp ñëw waa waa waa waa waa bokk gis-gis waa waa sa bopp gëm sa bopp waaw yéen waa gëm sa bopp ñele waa waa Serigne Mboup ak ñëpp ñëw leen ñu dem kaay leen bokk ah, loolu de moo gën a yaanu maanaam par consensus dañ koy waxtaane mhm. ñun waxtaane ko pour jàmm nañ ñun ñëpp nañu àndandoo demandoo demandoo demandoo demandoo élection loolu mooy li nga xamante nii ne moom moo am ay article diw ak article tel ak ay code bi nee dama ne la wax ji yëpp mu bëri mu néew loolu la li loolu li ko indi mm-hmm. très franchement moo tax wax naa ko keroog loolu bi ñu débat nee naa yeew yi ne devait même pas accepter la décision du conseil constitutionnel man juum naa naa reconnaître sama juumte même bu ma joxee dëgg yoruma nguur dama ma dara naa wan sénégal yi ni leen man juum naa du ma dem. non mais ils ils l'ont pas accepté. Ah, ils disent carrément que c'est ça le malheur c'est-à-dire c'est-à-dire man parfois da ngay baat ñàkk yow nga juum ñàkk boo juumee ne dama juum ma ñàkk même boo ma joxee dëgg man mais damay reconnaître ne attention conseil constitutionnel man juum naa nga jox ma dëgg pourquoi foo ko teg man xam naa ne dama juum. parce que loolu mu conseil constitutionnel may leen loolu ba ñu am ko tey suba boo wax ak Sénégal Sénégal bi daan démb ba la conseil constitutionnel joxee dégg da nga ko nangu tey ba mu la joxalee dégg da nga bañ et c'est ça le problème foofu mooy indi parfois zizanie problème dans l'esprit de Sénégalais. Mm-hmm. te loolu nag nen bu amee dama lay wax benn affaire ñun réew mi moo ñu ñor. Mm-hmm. jàmm moo ñu ñor. oui franchement réew mi bu ñu nekkoon nekk ci dal. contentieux électoraux yi ñu ñu élagué ko. d'accord bëgguñu réew mi nekk ci guuta mm-hmm. on ne préfère pas ça. xanaa ah oui. mais nous waxuma ay waxatuma dama dépassé cadre yi yëpp ñu jëm ba ñu defoon ndànk on va vers une situation incontrôlée à tous les niveaux. Mm. le report. bu ñu xamee ni lii fa mu jëmee jëmee réew mi baaxul ñu def report. kon tu pour le report. mais par rapport est-ce que du injuste. waxuma ay yooyu man sénégalais laa bu. toog mais est-ce par rapport ak ñeneen. non non xam naa Omar. xam nga ñuy wax report. waaw mais man xam nga ce qui est bizarre dans ce report ñu xam nga ñuy wax report naan élection du fa am. waaw mais acte yi ñu war a poser ñu ngi koy poser. waaw vendredi démb. moo nekkoon cinquante. c'était un jour avant l'élection mm-hmm. ci la toute coalition mm-hmm. war a notifier ay plénipotentiaires auprès des autorités administratives mais yow askan wi laa fait waxuñu report ah attention. waaw mais ñoom ils n'ont pas parlé de report. d'abord yow tu poses tes actes par rapport aux élections. laisse-le terminer ñu dem ci laisse le terminer mais mais xam nga loolu aussi euh, là aussi euh, là aussi ça pose problème. d'accord mais mais mais ñun dañuy wax ñun mais mais mais d'accord mais ñun mais ñun dañuy ah, waxtaan rek en tant que askan wi. d'accord yow tu plaides pour le report. c'est-à-dire c'est-à-dire c'est-à-dire il y a une fu ñu xamee ne on va vers des situations yoo xamante ni suba. compliqué day compliqué acteurs yi war nañ mën a toog waxtaan. parce que ñoom la war nañ mën a toog une élection c'est une fête pour le peuple démocratique démocratique pour le peuple très bien ça il faut que les gens le sachent foofu dañu war a tëgg di fecc di waxtaan ñu xam ne ça vraiment suñu suñu mais c'est ça c'est-à-dire c'est pourquoi nag c'est pourquoi nag ñun ñi nga xamante ne ay citoyens rek lañu bokk ci fii ci askan wi waxtaan il faut ñu jéem a xool aussi comment nous à notre niveau nan la ñuy jéem a contribuer ku nekk bàyyi sa bopp. dañuy mais mais lu toll ni élection législative suñu ouvriree ay porte pour euh, trouver consensus ba reporter ko est-ce que du nekk un précédent dangereux. très dangereux est-ce que du du ñu dem leneen encore. élection présidentielle pourquoi pas ñu dem ba trouver consensus. pour reporter ko wala ñu trouver par la force pour la ñu wax. il faut da nga sànq yaa ngi naan il faut supprimer le conseil constitutionnel. essayer de trouver autre chose. Réforme, oui. mais mais mais dama leen wax aussi benn affaire. c'est-à-dire que li ñu doole bi conseil constitutionnel am est à la base de tout ça parce que conseil constitutionnel am na foo xamante ne bu fa tolloo moom dafa war a lire le droit bañ a xool intérêt kenn. d'accord c'est ça ce qui est normal. mais aujourd'hui ce qui se passe. s'il faut s'il faut s'il faut aujourd'hui fustiger c'est l'attitude du conseil constitutionnel. mais donc xanaa bu boobaa l'ultime conviction bi juge bi di am tribunal dañ koy jënd ñoom lépp lañ koy jënd tamit. ultime conviction également il a il a son mot à dire par rapport au conseil constitutionnel je pense que euh, euh, ñi ñi toog ci plateau bi ñëpp euh, ils la même chose par rapport au conseil constitutionnel culturelle mais quelle est la position aujourd'hui de de Sa Bopp euh, par rapport ak éventuel report des des élections oui bon mmh, indirectement xam nga tey jii nii il faut ñu xool lu ñu weesu mmh. li nga xamante ne ay dérives la yoo xam ne on les a constaté on mmh. les a même fustigé li nga xamante ne conseil constitutionnel conseil constitutionnel def na ko xam nga tout à l'heure am na ku wax euh, la mise en place euh, de cours constitutionnel parce que tey dafa mel ni ne conseil constitutionnel dafay créer ay lois parce que sans que je suis pas d'accord avec Ba su waxee ne on a interpellé la jurisprudence de Fanden non non non non non. vous non vous avez vous l'avez tout à l'heure. il faut m'écouter Ba attendez. voilà non tu m'as attendez waaw terminer mon argumentaire quand même. tout à l'heure vous savez pourquoi je dis ça Néné c'est parce que tout justement tey man su ma jàng droit si lu tuuti. Cheikh Omar peut-être moom def na droit nee na jaaroon na faculté de droit dañ lay wax ne la jurisprudence si la loi est obscure. c'est ça. wala ou la loi est en quelque sorte. est omis wala dara. Hmm. mais fii nii dafa leer nañ parce que mënu ma concevoir nga ñëw par exemple tey c'est euh, L 157 nga wax ne pa affaire de parité moo tax <laughs> nga demaat fële def le contraire vraiment ça pose problème. nee na li ma lay wax dafa grave de lii nii dafa nekk gis nga affaire de loi ak affaire de réglement suñ ko brûler si benn dëkk. dafa nekk loo nga xamante ne dafa graaw parce que tey parce que quoi, tout à l'heure vous avez de euh, le Vietnam nous ne voulons pas vivre de l'état de nature hmm. loolu moom ñaanuñu yàlla sax dund ko fi te loolu pour ñu nekk si il faut que ñu nekk si dynamisme boo xam ne dañuy nekk si dynamisme légalité hmm. parce que tey conseil constitutionnel booy xool dafay dëggal hmm. gis nañ arrêté ministre bi mu génnee le 30 le 30 mai dafa génne benn arrêté arrêté boo xam ne tout justement c'est aux allures tout justement partage donc on parle même de partage de Salomon mu ne ñi ñoo admis ñi admis wuñ ñu xëy conseil constitutionnel dëggal ko ñun gëm sa bopp si lañ bokkoon. Mhm. te conseil constitutionnel lan la waxoon au niveau de la grande coalition gëm sa bopp dafa ne yéen joxul leen ñu preuve te ñun dañ ko jox ay preuve mhm. mu taxawaat ne yéen dañ leen rejeté waat sax pour ay motifs euh, pour d'autres motifs nee na tey su ma la xanaa tey raykatu nit bi sax tout à l'heure il a parlé de l'ultime conviction du mais xanaa juge bi sax bu jàppee si ultime conviction am bu nit ki rayee nit sax dina nekkul lu tax nga rey nit ndax regret na nga ko wala defoo ko wala lii lii laa sukkandiku pour renvoyer sa procès wala dara mais du la jox benn benn fondement juridique et que lii dafa nekk li nga xamante ne dafa ñaaw dëgg la 2011 fekkoon nañu fi ak lu fi jotoon am il y de moment yoo xam ne c'était des moment répréhensibles te loolu noonu yëpp lu ko indi mooy injustice. Mm-hmm. parce que tout justement le président de la république tant que président de la république muy nommé ay saagam ku la abal bët fu ko neex ngay xool. il loolu moom moom moom moom moom xel waru ko sax nag. il faut réformer aux États-Unis on ne tu es à vie. juge ngay doon ba ni ngay duggee sangoo suuf kenn du la mën a en quelque ñëw fekk fi nga nekk ne la nekkatoo juge ñëw démettre la alors que fii au Sénégal euh, on a parlé tout justement que ne c'est le président de la République non seulement c'est lui qui. préside le conseil supérieur de la magistrature il nomme le ministre de la justice ministre de la justice moo dirige procureur mhm. mais jusque là ñi ñoo nekk si kaw ñi ñoo nekk si ñi ñoo nekk ci suuf te mhm. loolu lañ mën jàngat te moom lañ mën gis mais lii nii yëpp lu ko waral lenn la mooy man si sama jàngat bu gàtt mhm. euh, Macky Sall ak ñi mu àndal pare guñ pour génn Sénégal pare guñ pour annoncer renoncer wuñ kuy dem joxe nguur gi. lii yëpp day wane ni que dañoo bëgg jàll. dañu bëgg jàll pour dem def troisième mandat. xam nga démb mu ngi taxaw yëkkati ay kàddu. ne liste bu ñu parité wul du fi mën jàll un point c'est tout. Mhm. taxaw ne les élections se tiendront ça c'est à l'avenir nañ dem lu ci kanam raw li bët des propos yoo xamante ne dafa nekk ay propos yoo xam ne ay propos yu illégal la ay yoo xamante ne rafetul jekkul te dëppoowul ak justice. bu la neexee nga taxaw wax ko soo tànnee ñi ngay bëreel ba pare. tànn ñi nga xamante ne ñoom ñooy jàll pour dem à l' assemblée ñoom ñooy tànn ñuy dem à l' mais tey Omar Faye wax nga lu am solo man su ma defee erreur ki ma war a ko professeur bu ma bindee un ma a bind un dem bind deux professeur bi ma war a corriger dama garaawal bul bind deux bàyyil noonu rek bi naa xool nu ma ko demee damay xam ne man aw ma professeur bu baax. tey liste yëpp lañ war a jàpp yu am irrégularité invalidé leen. la Sénat a fait un communiqué sur toutes les listes également. l'a fait loolu aussi le dire. honorable loolu Sénat wax ko noonu c'est eh, eh, eh, d'injonction. non non oh, non la a dit ne ne correspond pas à la vérité. non attendez c'est le 13 c'est le 13 communiqué. lu wax aucun mandataire n'a respecté non, la date de dépôt des listes. C'est une contre-vérité. Moi, je suis un mandataire national. Alors, vous n'avez pas respecté ça. Donc, si. c'est une contre-vérité. Mais pourquoi attendre aujourd'hui pour défendre ça Non, je l'ai toujours dit dans tous les plateaux et j'ai dit que la Sénat n'a pas dit la vérité. On a fait un tirage au sort. Et le tirage au sort nous avait destiné à la 17e place. Permettez-moi. non, non, non, non, non, vous n'avez pas la parole. tout à l'heure non je vous ai longtemps. oh allez-y euh, allez mais xam nga lan moo xam nga moo war a am xam nga lan lañ lan lañ war a bàyyi xel. bu ñu nekkee tey si benn dëkk bi nga xamante ne dañu bëgg yoon ñu dawal ko autorité bi nga xamante ne moo am la qualité du locuteur pour parler taxaw génn communiquer le treize. il ne dit la vérité. mais pourquoi attendre aujourd'hui. est-ce que dañoo xaar ba tey nga koy door a dégg ci man. pour tey nga koy door a dégg ci man. parce que jusque là. on ko génnee ba tey ñu ngi koy wax. vous nous avez c'est une contre vérité. mais jusque là vous nous avez donné aucune illustration concrète sur ça fan nga ko waxee. fan laa ko fan laa ko laa ko waxee. waaw bis ni ki tey. bis ni ki tey bis xaaral rek dama lay jox ay exemple yu bari. non attends euh, Justin. Euh, loolu loolu non. nee nañ longtemps entendu quand même. donc loolu on en a parlé quand même du débat bu ñuy tenir fii nañ à temps ci direction des des des élections pour déposer ñoom ñoo ah, leen. leen ñu mais mais mais nee na ceci mais nee na li ma bëgg a wax mooy. ceci démontre l'illégalité de ces échéances électorales. foofu laay waxee. et vous conviendrez avec moi que c'est pas normal. et on est euh, kan moo def loolu. benn nit benn coalition moo fi déposé wul à temps benn ñoom dañoo amul fit wax coalition bu déposé wul à temps. on était huit tous les huit déposé nañ le le dimanche le dimanche la ñëpp déposé sept yi. mais ñun yeewu askan wi. ak wallu Sénégal ñoo toogoon DGE ba ba le lundi 23h ils n'ont qu'à dire la vérité. d'accord loolu mooy dëgg. waaw mais vous conviendrez avec ah. moi aujourd'hui que non bu ñu wax ñëpp. yeewi askan wi ak wàllu ñoo doon def seen alliance. waaw léegi bàyyi ko mu yeggali foofu ba lundi à 23h. mais les autres ils ont déposé à temps. c'est ça la vérité. ba li si ba yàq ah, ah yéen ñaar yéen ñaar yéen foofu ko fariñ en ce sens. ñoom bu ñu yàqee seen liste yéen tamit da ngeen yàq seen liste. nous l'assumons. si non je dis pas que vous ne les pas assumés donc vous assumez l'illégalité non si si da jalgati yoon. waxal ba parce que xam la moo tax moo la da jalgati yoon ah parce que yi ñoom ñëpp ñoo taxaw seetaan. xam nga yéen fële da ngeen. yoon mooy li conseil constitutionnel wax. lu conseil constitutionnel wax ngeen fi nga fiy jëlee. yoon mooy li conseil constitutionnel. waaw mais waaw c'est malheureux de le dire mais. yoon Sénégal bi ñu nekk nii. yoon mooy li conseil constitutionnel. conseil constitutionnel ma fi fal ma fi war a jógee. bu ngeen faloo looloo génn ci débat. non non yàlla ngeen faloo ñu régler problème dindi ko mais conseil constitutionnel moo war a def ba keroog ñu def élection honorable ba keroog ngeen di falu yàlla leen ko yàlla may amaana d'ici 2035 bu ngeen faloo vous enlevez le conseil constitutionnel. non mais tant que le conseil constitutionnel est là waaw mais sa décision de office de loi ba waxam mooy loi ba yaa man man man waxuma pour par exemple dénigrer tel parti ou tel. non xam na moo tax may wax ba. man damay wax. et puisqu'en vérité. li am dafa am solo. xanaa est-ce que xam violation de la loi. non violation de la na moo tax ma wax la après les enquêtes de moralité bu conseil constitutionnel.

bi nga xamante ne tey le conseil constitutionnel da ko joxe d'une part mhm. ne kii matalul parité mënul ñëw bokk ci élection yaa ngi comprendre mu ñëwaat quelque part gis boo xam ne am na irrégularité mu ne eh direction générale des élections ñii même buñ matalul parité defal leen leen am nañ droit participer ci élection yi je vous parle de la liste Dakar liste de Dakar déjà liste départementale ni koy falee ni falee liste nationale du loolu dinaa si ñëwaat léegi mosu. non non non nga daanoo bul interpréter bul interpréter ñëpp benn nit moo fi interpréter lu valable Cheikh bi muy conseil conseil constitutionnel mooy sa xalif général d'accord. je l'accepte mais teewul nag bu juumee. Mm-hmm. dañuy taxaw ne juum nga. non mënoo ko wax juum nga. non loolu mooy doxal dëkk non joxe na fi deux joxe na fi ñaari décision yu bokkul. xam nga moo tax ma ne la tant demuñu ba réformer ne conseil constitutionnel bu waxee. nangam ak nangam mën na si tegu mais li loolu moo fi nekk. yéen mais kon nag kon nag waroon wax ci affaire liste Dakar parce que foofu nee nga dina pas d'accord avec le conseil constitutionnel. ah mais wax nga je suis pas d'accord mais gis nga ne pour terminer gis nga ñii il faut ñu wax dëgg bi. bu nu ko ñi nekk fii tey le régime en place. Hmm. y compris vous êtes de l'autre côté. je parle pas de régime parle d'un parti politique. peu importe l'appellation ah, non non waxal parti politique rek. xam nga laal bu waxal tey xam nga ñii pare wuñ pour jóge fi. te dañuy dofloo sénégalais yi. non ba parti politique mooy gouverner pare pour jóge fi. non te leen non yàlla nañu si yàlla musal pare wuñ pour jóge fi de. on va briguer le suffrage des sénégalais en deux mille ba deux la pare lañu am wuti pouvoir. maintenant kan mooy ne suñ candidat nga voilà kenn duñu forcer ba ñu wax ci. maintenant nag mën ngeen def hallucination dugg fii mathématiquement campagne euh, bëgg wutal troisième mandat moo tax ñu député loolu loolu seen wax la rek mais en tout Benno Bokk Yaakaar s'il vous plaît la plus longue du Sénégal ba 2050 dañuy nekk dañuy nekk candidat war a nene son micro n'est pas ouvert du dos à la cuillère maintenant président Macky li muy def nii yëpp dafa bëgg def troisième loolu sa gis-gis la. sama gis-gis la. très bien très bien je le je l' assume. maa ngi xaar boobu wax xamal de pour ñu xam ko tey mu jeex. Mhm. ñii février deux mille vingt quatre moo leen fi dese. sénégalais yi dégagé leen indi fi ñeneen. ça c'est su souhait et c'est légitime. parti politique nga yor. mais les sénégalais vont. les bu subaa bu ñu ne woon tey jii nii. mais ñoom nañ troisième les sénégalais vont bu ko def xelam. selon yow yow yow selon société civile également. lan lan mooy seen part de responsabilité wala lan moo war a nekk seen attitude. par rapport à cette question. da ngeen utiliser terme yu gën a.